لمنزل النجاة ربي بما يسره أزان خرجا بجاي عبد لمن لله نجاة أمير لرب كريم شريك له وساريا يوم رمزات الملا محمد صلى الله في أبد عليه في اسمه كل به كلام أما نوائب لجملة الخلق ما يختار من برا ناجيته جل ومن وكرمني تقريب هاج وكل من دخل بريئا رحمن لجميع الخلق رحمة من يهني عني سليما قرآنه خلا وتومة المسافة عن كل ما سدات ولا من خفايا من جاء

Vida

لله حال جاء محمود ما قنا والخلق من درار بجاي من لله حال نبكي زوج هذا زي موسى أيوب موسى أيوب موسى أيوب يقولون موسى موسى sàggaay bi waaw ak salaam si Massamba. man sa sa sa sa sa sa gaay. waaw waaw ëpp baal si Massamba. naka la waaw ñoo ñëwaatoon doon ziar rek. di fay lëkkaloo at bi moo nekk noonu. ñu ko ñu ko baaxoo defee rek. wax dëgg yàlla di di di santaan boole rek ci pasteur bi. waaw di leen ñaan itam yéen it ngeen yàgg di jël lool. ndax xam nañ ne moom ñu ngi leen defal lu ne. mel na ni sëriñ bi leen ko defal. waaw loolu laa ko ñëwaat sëriñ bi. waaw hmm? am na am na am na bi bi baax na boole nañ ci ab gàtt. xam hmm. naa mi ngi ci biir ndax tamit suñu doon bàyyi wàll. Ah, waaw waaw waaw gàtt mi hmm. la. waaw ngi saa bu baax. waaw di di di di jëfee bi tam jëf bi lool. jërëjëf. ñu su ne rek day gën a foofa bu baax. ñu ngi gisee Mokhtar Diakhané yi ñoo ngi ñaan ñu li muy yàgg yàgg ne ànd ak barke. na ak fan mu gudd ànd ak biir. bu ëllëgee ñu bokk teew ci suñu taxaw. am am waaw. loolu loolu itam ñu ngi fi. fan yii sax loolu ci waxtaan bi ma gën bu mu woo bu nekk fii ci hôpital bi man la bul foo séen. ba incha moo taxoon sax ñu bu ñëwee. danañ ci wax ak yow ngir. dootul sax daanaka jar ñu lay jël di la yóbbu Dakar. Mm. ndax comme am naa pour euh, médecin bu lekk fii ci hôpital bi. Mm. ngir rek léegi dañuy wax ak ñenn ci waa njaboot yi ku mel ne euh, Sëñ Fallou wala kii Xabaan. Mm. bu ko defee ñu mën di la jël fii di la yóbbu ci hôpital man man la bu Foussé bu ko defee moom nee lépp daal. Euh, lu lu si kii war wàllu kii rek taxawaay rek. waaw incha allah bi dinañ ko mën a matali fii sax te du jar waaw waaw te du jar ngay sori njaboot gi daal. waaw incha allah. maanaam bu ñëwee itam dinañ ci wax ak yow ngir. mu waxtaan ci rek. dafa ko ci doole la ñun sax léeg-léeg bu bu ko kiiyee sax jëree ñun mën nañoo ñëw. ànd ak ñoom liggéey bi wala sax ñoom ñoo ñëw jël ci ñoom ci seen liggéey. defee ñu dem hôpital ñu di ko ba lépp ñun ñu ci hôpital dañ waaye borom xam-xam boo xam ne bii am na xam-xam ci nit ko ci baax bi ah yow damaa doon wax ne te la ma la téléphone woon daa bokk ci wetu fële ba sax yàgg na ndax ma la téléphone bi ñu ne bu ëllëgee kuréel bii nga xam ne saytu lu fi sëñ Tuubaa bàyyi ko dimbali ñu yàlla su boobaa te suñ fa lu wax ni yu ma xeex may koy jàng mu fay doy si yëpp daal ne képp ku liggéeyal sëñ Tuubaa su ëllëgee sëñ fa lay fay wala doy man nag sama taal ak sama bëgg ak sama yéen moo di su boobaa su ma yàlla mayee ma taxaw fa kanam suñu bopp mu leer na moo yor mu jàmm su boobaa ma ànd ak yéen ngeen ci sama topp ci yéen ni mu yor mu jàmm wala ma jiitu ngeen topp ci ma ni mu yor mu jàmm moo tax mu naan la sama nga ko fàtte. waaw da nga ko fàtte. kon nag ñun kuréel bii di jëm Sëñ Tuubaa seen jëf pour mu réew yéen a ngi def fi ko war def. def. jëf keneen ku Sëñ Tuubaa ndax njàng mii bu ñu ko doon bu ñu ko sëñ bii sant. boobu tuur ranke na lool. Mm-hmm. boobu moom la jàng alal ma bàyyi mu ne ah njàngum sëñ bi nekk alal ma di ko kon nag loolu bu fekkee dama caa jàpp baaxul suñu tabax xasee bi. Mm-hmm. ak ndigal sëñ bi dimbali ba ñëpp xëy na ko rey. Mm-hmm. kon kon sant yàlla kon ndokk yéen 작품 이런 거 보세요. 능행선 제약입니다. 한 5분이 22기 민교 하는 게 빨리는 민행시도 가는 게 막상 골치야 돼. 과연 이거는 이 세인트 말이구나. ñu indi seen ñu koy defee ñu yàlla ñu indi suñu tuuba léegi ñu ànd liggéey seen bi bu yàgg ki ñëw ki ñëw ci ki sore ku jege ñëpp ku nekk sa laaj parce que ñëpp la sax ni yàlla indi man mën naa ko fa expliqué. parce que def na at. bi nga ñëwee Dakar bi nga doon say bi nga doon saytu yaram. bi nga ñëwee Dakar bi yaram. waaw yi. waaw këyit yi. këyit yi ñu woon ci. waaw gaal gi damaa xool ñu ngi yëngu. douze jours. waaw. mais këyit këyit yi woon ak ak ak ak

gàddu gi si gisul xam naa yéen. bu gàddu gi dañuy gis. waaw man ko leer tamit am na lu ñu mën a am gàtt. pour tabaski bi xam. ñu ngi ko ñu ko ñu ko

waaw kon baax kon xam naa moom dinaa ko jox sa numéro léegi léegi léegi man tam dinaa ci jéem a kii moom kor bi bu fekkee bu fekkee ne kii dana baax màgg incha allah kon ñu ñëw ba léegi ak sa jërëjëf sama la jërëjëf Wow. waaw fii la ah ñoom mag yi la ñoom mag yi may ngi sax waaw ñoom mag yi ñoom ñoo ko jàpp kii macha allah. yëg-yëg la de xanaa loolu yëg-yëg la de bismillah ndax mën mën nga ñoo dikkaat sa ndorteelu njàng bi sa parent sa parent boobu de maanaam mooy dafa am xam nga waxtu woon nañu yàlla ci suuf yi moom ban laa doon jënd ci Cheikh Oudou. dégg sëñ bi daa woo Cheikh Oudou ko ban. ba jox ko Ibrahima Faye. loolu Ibrahima Faye mooy moo ko yóbbu waay. bu ko doon ñu ko liggéey. Cheikh Oudou ko ban. ban ma nag. ñu sëñ bi woo ma jàmm تعبي لنا أمرنا ضعي لنا حزننا وهب لنا فداك أبي 네. 네. Bueno, preciado. ¿Un poco se morí? Nah. Jangan nak at mo kali di lah. Kalau di mai at mo kali. Ai cene ni. Itu di situ. Dem. Jadi. Jadi. Jadi.

ñëw maanaam li suñu laaxee français si daara jàng la waaw nee ko fi jàpp ngir waajalee ko tabaski barkeeloo am na ab lim tamit buñ ko buñ ko jox waaye itam si wàllu wér gu yaram dafa am leen loo xam ne sàkk woon na ko mu mel ni ay buntu ñu ngi siy bëgg a feeñ. wàllu yóbbu ko fii hôpital war na bu posé ngir taxaw ko ba alhamdulilah jot nañ léegi médecin bi nga xamal nañu mardi incha allah dinañ te mën a yóbbu foofu ngir mu xoolal ko yaram bi fu fu wér bi toll naa ne sëñ Abdou waxaat nii sax ñàkk mardi dana ñëw fii si kër gi nga xam ne ñàkk moo lay gën a woyof defee dina mën a ànd ak Baye Moustapha yóbbu ko ñu xoolal ko yaram yi saytu ko ko defee lépp lu ci war danañ ko danañ ko warlu bu ko jógee itam sëñ Abdou dina ko mën a indiwaat fii si barab bi loolu lañ doon leer tey xam ne ni lii moom amaana suñu yéene la waaye alhamdulilah bi nga xamee ni moom sàkku teefam la moo ko moo ko sàkku te amaana ñu ñëwoon rek ak suñu yëpp wala suñu xeet def ko tay amana duñ ci am digal hmm. waye lii mom day lo xamni ne nii mën naa ni juróom benn weer wala lu ko ëpp mi ngi nii hmm. mu ñu ci top hmm. dañ kaa naroon na yobbu sax ba nakar dem beeg yéeg beeg wàcc bi ñu ne nañ ko bayyi fi Touba ñu dem di dikk euh, hôpital ba ko defé lu ci war lepp inshallah allah mbooloo la dinañ ko dinañ ko taxaw ñaan yalla rek fekke tal ak man-man bu and ak sutura ak jàppandal sëñ bi lu dajé seen allah.

déedéet 30 déedéet Iya kan?

kon suñu xol sedd lool ñaanal ñu ci Touba Belel bi waaw télévision bi tam nga ñaanal leen mooy télé bii fi ñëw tey doon jël waxtaan wi waaw waaw waaw moom moo nekk nii sax waa Touba Belel info. TV waaw. ci tànk lañ wax dëgg yàlla ñu bëgg a nekk liggéeyal sëñ bi. keneen ki nekk mu ñëw keneen ku ku ma àndaloon dem mu jéem a. incha allah ngi fi dégg si. waaw chef yi naa ñëwal ban ñëpp. incha allah dégg nga ma ne buñ fi dellusee dana defal bànn bu neex. dëgg la dëgg la kay. walaay ndeysaan. waaw incha allah kon ñoom buñ fi dellu see rek. waaw nga defal leen bande bu neex rek. waaw incha allah naka la ñaanal itam wax dëgg yàlla. waaw Pape Moussa Sow mooy njiit bi. mu njiit waaw waaw moom mooy wut ci wut wax dëgg yàlla ku am possible day am yéene lool nag ci li nga si doon. amiin amiin barke borom Tuuba. amiin amiin amiin amiin. am ko jël moom siyaar waaw maa moom moom euh, télé bi moom moo nekk noonu Moussa Sow waaw waaw. kita bukan bukan